léegi nag mhm. la cas mooy bi si wax ma amul sañ-sañu compte convocation bi tant que siège yi ñi nga xam ñoom ñooy siège conséquence dañ joxe woon li nga xamante mooy seen euh, délibération ci recours bi mhm. est-ce que sax du recours boobu moo tax ba gars yi changé tactique parce que xam naa ñàkk ba gars yi changé ndax xamoon na ni maanaam mun ñu koo téye ndax comme recours am na rek mooy waral tey jii euh, ñu mën ko euh, jàppal xam mel nii mhm. dafay wan ne rek politique moo nekk si kaw dossier bi ndax xam na moo jox ministre de la justice ndigal ministre de la justice jox procureur de la république pour que ñu jàpp Ousmane la boo la mhm, mhm. léegi nag euh, yéen euh, euh, da ngeen di toog xaar conseil décidé non ñun combat bi day continuer fii amul lu ñuy xaar li ñuy xaar mooy ñun li ñuy yor tey jox nañ ko mhm. léegi li am mooy askan yëpp xam ni tey lii mbir mi mbirum dossier politique la dossier politique nag politique la moo koy réglé non maanaam maanaam ko léegi conseil conseil ñaata ban appel am pour tontu mais bu neexee xam na de am mën na koo yàgg defal loo xamante ni deux semaines lay dire mhm, mhm. euh, fukki nit fukki dëpp juróom ñaar ngeen bi ngeen ci ma ne ma ne fukki ak soxla woon ngeen am fukki nit ak juróom-ñeent yu signé la na juróom-ñeent la na ñëpp signé nañ déposé defal nañu récépissé récépissé boobu ñu defoon nag jox nañ yi mhm. justice bi ci boppam xam na ni dèjà mun yëkkati tant que conseil constitutionnel euh, àdduwul si li nga xam mooy report mhm. ñoom xam nañ loolu mhm. loolu moo tax automatiquement ñoom bi ñu xamee loolu il faut que maanaam euh, président la république mi nga xam mooy mooy njiitu réew mi joxe ndigal ndax tey procureur de la république moo joxe ndigal pour que ñu jàpp Ousmane Sonko koo xamante yow yaa ngi dem dugub ji ñu ne la yow fii nga war a doo fa jaar fii ngay jaar ñettaade la pare maanaam xam na ne lii am na ñu kidnappé la dugal foofu noonu pour toppale yeneen influenceurs yooyu yaakaar naa ni euh, en tout cas lu grave la lu grave la ci réew lu grave grave ni mu sa am ci am ci Sénégal mhm. léegi nag en tant que député yéen combat bi naka ngeen koy mënee comme recours bëri mën na yàgg mën na gaaw ci combat démocratie wax askan bi wax li nga Mm-hmm. jërëjëf